dàq projet de loi bi ñeel neenal conseil des collectivités territoriales ak conseil économique social ak environnemental ndaje googee nag nga xam ne ni ki tey jii ci gaaw gi lañ ko doon amal député nag yu féetewoo ci majorité présidentielle wi daal nañuy tuumaal seen i yu féetewoo ci Benno Bokk Yaakaar jàpp na daal ñoom ñii nag ñoo bëgg rek naxasal liggéey bi nga xam ne daanaka plénière bi daan nañ ko woote altine gi ñaari fan ci weeru satumbar parti socialiste ñaari fanu lël goo xam ne nii ñu ngi ko amalee seen i màkkaan féetewoo ca Colobane Aminata Mbengue Ndiaye secrétaire général bu bile parti daat nay fësal ne daal daañu amal nag ab tukki nemmeeku ci rek gox goxaan yi féetewoo ci réew gi yëpp lu ni mel nga gën a a dooleel la eh, la ñu dëtmal directeur général bu APIX di eh, eh, daat nay fësal xal wi nga xam ne mu jëm jas euh, jëm ñaajo di teer wi dinañ ko tàmbalee jëfandikoo euh, ci weeru sulet atum cinq jàpp ne bi mooy ñaareelu phase bu teer bi lee nga xam ne dina rek euh, bawoo jëm ñaajo ba ca jas ci digg rek fukki kilomètre ak juróom-ñeent lu leen nag ñu xayma ko ci koppar toll ci ñaari téeméeri milliards ak juróom fukk ak ñett mbokk léegi na fas bu leen taxir la ñu ko jaajëfal leen bu baax a baax waaye itam di jégalu ci yéex door gi jafe-jafe ci wàllum technique bi dañ koy tàmbalee ca pencum ndawi réew ma assemblée nationale ndaje gu ñeel commission des lois ni ki tey ji lañ ko doon amal ngir càmbal projet bi nga xam ne nii sàkku def bi ba woon naa ci njiitu réew mi Bassirou Diomaye Faye bëgg a tas au conseil des collectivités territoriales ak itam 16 jàpp na daal yaara banqaas yooyee lu muy lekk ci koppar dafa bari lool te nag jot na ñu daal di xool yan anam la ñuy def daal indi coppite ci wàllu woowee waaye jàppale na nag xam ne ñoo féete féetewoo ca barab boobee ci eh, coalition benn Bokk Yaakaar nim ne nag wattuñu rek mbir mi dañu ko rek taga tembel ba tax sax commission wa nag dafa dàq boobee projet de loi jàppale na nag daañu ko sax woote nag ak ak altine gi ñaari fan ci weeru septembre liggéey bi ñu amal ci commission de di beneen ponk ci doxalinu assemblée nationale ngir xool projet de loi bi nga xam ne ni li ko tax a jóg moom mooy indi ay coppite ci ndeyi charte réew mi gannaaw bu mu jaaree réunion bu bureau bu assemblée nationale ñu tijji ab session extraordinaire ngir càmbar lu ñu bëgg a supprimer au conseil des collectivités territoriales ak conseil économique social ak environnemental commission des lois de la décentralisation du travail et des droits humains daal di jël dossier ci yoon. kon benn affaire mënul jaar ci pencum ndaw réew mi ngir ñu voté ko fii ak jaarul d'abord ci commission ba nga xam ne ni moom la ñu tëral ngir mu saytu lépp lu jëm ci wàllu boobee te mbir mu ñeel modification bu constitution bi commission des lois moom moo yelloo ci càmbar bi le dossier. ni ko conférence des présidents sàkko waa commission bi daal di dajaloo ngir mën a waxtaan ci linimel mu di ay waxtaan bi nga xam ne ni sëkk nañ ci tontu laaj ak ka nga xam ne ni moom moo fa teewal gouvernement bi ngir mën a xool lépp lu wundu projet de loi bi nga xam ne ni njiitu réew mu Sénégal Bassirou Diomaye Faye moom moo sàkku ngir ñu wote ko gannaaw waxtaan yooyu nga xam ne ni amal nañ ko ci commission daañu bindi ab rapport te rapport boobule sax war nañ koo jébbal yeneen député yi gën kaa gàtt benn fan balaa ñoo dem ci plénière ya nga xam ne ni ci ñaari fan ci weeru septembre ci atum 2024 lañ ko fas yéene amal mu di ba nga xam ne ni buñ ca jógee pare daañu xam bu dee au conseil des collectivités territoriales ak conseil économique social ak environnemental dañu koy supprimer. ginnaaw bu ñu dàqee bi les projets ci commission yi nga xam ne ñi ki tey ji lañu amal ndaje gi ay yëpp dafee nital groupe parlementaire bi askan wi daan cee fësal nag njàqareem jaarale ko ci bu mu fësal ci page jàpp na daal seen i naataango yu benn bokk yaakaar ñoom ñee daal ñoo bëgg a tagga tembeel nag liggéey wi jàpp ne ñoom ñee daal ñoo bëgg a jàppale sans tànk seen rek ay ñooñ ñu bokkal coalition bokk na ci Aminata Mbengue Ndiaye ak Abdoulaye moom député bi nag yemu ca ne daal naataangoom yooyu dafa mel rek dañoo lank ngir rek ñu daal di nag wàññi koppar yooyu nga xam ne dañoo jëm ci yooyu ak institution nga xam ne daal njëriñam bëriwul nee nañu daal bu ñu ko dëlee nag moom xool copte ñu indi ci wàllum sàrtu ndew réew mi loolee moo juróon gënoon na jur nag li nga xam ne rek moo di njëriñ Aminata Mbengue Ndiaye secretaire général bu parti socialiste ni ki tey jii ginnaaw séminaire bu tàmbali tey jàpp ëllëg daan cay fësal bëgg-bëggam bokk na ci daal wooteeg tukki ne meeg koo xam ne daañu ko amal ci googu xaat ñi daanaka tënk réew mi bu ko defee rek ñu mën a deqaliwaat nag PS nga xool bu baax a baax seen i base jàppalante waaye tam booloo bu ko defee rek ñu xool naka la waajalee seen bopp waaye tam samp seen taxawaay ci rek way ku jëg yi waaye tam ci rek élection yi nga xam ne daañu ko dëdmal PS itam mën rek deqalikuwaat amal liggéeyam na mu waree loolu itam tukkee na ci ndaje gi nga xam ne ñu ngi ko doon amal tey ji ca parti euh, socialiste doon na leen ko junj sànq itam secrétaire général bu APIX di Bakary Sega Bathily daan nay fësal ne daal teer wi dina jóge nag Diamniadio wuti Diass loolee di ñaareelu ko pàcc wu projet wile nga xam ne ñu ngi ko dëtmaloon ci rek nguur ak Macky Sall lañ ko daal di door waaye nee na daal dina tàmbalee daw ci weeru sulet atum 2025 dafa nar a rek daw ci xàllu ko fukki kilomètre ak juróom-ñeent koppare ñu ca dugal nag moom toll ci ñaari téeméeri milliards ak juróom fukk ak ñett liggéey wi dénk euh, dénk daal fi mu ne nañu daal daañu def nag seen kéemtulaay kattan ba rek jébbal nag yëf yi ca àpp ga ñu ko daal di wax loolee mooy kaddu ba mu daal jëkk ci ginnaaw rek ba mu demee moon ca bërëb ba nag day saytu liggéey wa fa mu toll addu jëmale ci kuréel gi ëmb juriste yu Sénégal ginnaaw rek bañ noon màggal nag seen kuréel gi bañ ko sempeek léegi nii toll ci juróom fukki dafa nekk prox ndoolu wàlle ñu daal di amal nag ab don de sang mais deret boo xam ne ñu ngi ko amal te CNTS mu nekk lu am solo ci jigéen juriste yi ndax jàpp na daal lu am solo la ci waajur yu jigéen ñi ak itam seeni doom waaye itam ñaax jigéen ñi bu baax bu ko defee ñu ba ci bain deret ndax nekk na loo xam ne daa ñu sauvé ay bakkat na suñ sukkandikoo ci ay statistiques centre national de transfusion sanguine naka noonu kuréel gi saytu wàllu wérgu yaram ci àddina war wërngal képp Sénégal dafa soxla bu baax a baax ñuy maye deret. ndax même norme yi nga xam ne moom la OMS fixé euh, Sénégal euh, matalu ko ndax dañ ne ci mille mille habitants yu nekk fukki fukki nit au moins war nañoo mën a maye te ñu ñu ngi ci juróom-benn maye deret nag daf di loo xam ne euh, geste citoyen la war na ku ne. war na góor war na jigéen war na mag war na ndaw ci kaw condition yi nga xam ne euh, mooy condition de santé yi nga nga nga ko. jigéen ñi nag ci seen wàllu wér-gu-yaram dañuy soxla saa su ne deret moo ne day soo demee fa ñuy maye deret li mu góor ñi mu ëpp li mu jigéen ñi. jigéen bu fekkee dafa toll ci euh, ndaw. Euh, dinay faral di gis baax gis baax boobu day wàññi ci deretam dinay faral di euh, jur di ëmb di wasin euh, ëmb beeg wasin bi day soxla deret bu bu wasinee itam léeg-léeg mu am ay problème ay problème mu hémorragie ngay ngay ñàkk ngay xëpp deret bu bari day bay tax ñu war laa transfuser loolu yépp nag wane na ne jigéen moo gën a soxla deret ni góor. jëf ju am solo ji nga xam ni juriste sénégalais yi def nañ ko bàjjenu gox yi itam desuñu ci gannaaw. lu am solo la. am solo lool d'autant plus que booy mayee sa deret da ngay sauver ay vie te sauver vie yooyu man mën naa ne que ñëpp la ñuy sauver seen vie mais jigéen dafa nekk au devant de la scène. kon lii lu ñuy magnifier la loo xam ne lii vraiment suñu sañoon du fiy gëj. bisub mayee deret bi nga xam ne thème bi ñu ngi ko jagleel nees mën a def bëgg na ñoŋal wér-gu-yaram jigéen ñi naka noonu tuut tànk yi dafa bokk ci màggal gi nga xam ne AJS mi ngi koy màggal juróom fukki at yoo xam ne am na ko ba mu sosoo ba léegi jërëjëf si Cissé coow suuf dekkee ci diwaanu Louga ñeen nag njabootu ko xule ak njabootu ko nem si yàlla eh, si Jili Mbaye jafe-jafe yooyu nag tax na ba am kuñ ci teg loxo mu ngi uyo ci turu Baye Dama xule ci rek ab jàppante goo xam ne def nañ ko ci wàllum suuf koogee ay ah, jege ñaaleem daal di oo taskatu xibaar yi fësal seen njàq rek seen métit sàkku ñu bàyyi ko mu ñibbiwaat ca këram waaye itam ne nañ coow li daal yor nañ ci ay kayit waaye bëgg nañ ñu leeral ko ba tax ñu sàkku ndimbal jëmale ci njiitu réew mi Bassirou Diomaye Faye ak Ilimaanu Jorin ci Ousmane Sonko sauf si suñu suuf la am nañu jugement non appel ni opposition am à l'indépendance li la bëgg nañ bàyyi bàyyi daam déficement le cadre bi ñu koy attee ndax ñu ko ci jëpp ci ko dara doole doole képp lañ ko jàppee doole waaye ñu ko ci dara ñu leen saagowu leen ya bàyyi daam loolu ñu ko ak ci ni kii la ñun ñëpp noo ko wax suñu suuf kon di fekk suñu bakkan mën a faa daan lan wax ñu daal ni menace de mort la bàyyi daam deful benn menace de mort dañoo bàyyi ba ci ajjuma ji ñu dem téye ko ndax lan dañoo béy mu dem ca euh, euh, conseil conseil réunion ba ñu doon defar lañ doon def ca conseil national lañ bàyyi mu fekke ko moo tax ñu fekke ko téye kon nag maa ngi demandé président de la république mu defal nu demande euh, mu def na enquête comédo seet ba xam ñoom kayit yi ñu yor ñoo wala ban ak kayit yi ñu yor ku gën a wala ban ndax nun noo ngi am avant indépendance te ñoom ci biir indépendance bi la ñu am makan wi ñu dénk wàllum pàcc ñi daal nay gëstu ci ndongo yi nga xam ne ñuy faral def stage ci bërëbu euh, fajukaay yi jàpp na daal am nay rëq-rëq yu bare bare yu sookee ci seen ak tàggatu euh, tax na ba waxtaan wu yàttu ñamal ko nag ca caaroy euh, séq ko nag ak ñi yëngu ci wàllu wile ñaax leen nag ñu xool naka la ñuy tàggatee nag ñi ñëw def stage ci barab yooyee waaye bu ko defee jugoon leen dooleel ndax liggéey bi ñu mën ko amal canam yi mu mucc ayib ànd ci Bakary Cissé mu nekk ab lël maanaam ab l'atelier ngir rek ñu ñoŋal stage clinique infirmier ak sage-femme yi atelier bi nag ñu ngi ko amal ci centre national psychiatre bu caaro yi mu nekk occasion ngir def le point ci problème stage clinique yi nga xamante ne ñu ngi koy nemmeeku ca bërëb fajukaay yi. donc tey projet bi euh, njëriñam moom mooy. fexe ñoo ñooñu encadreur yooyu ñu nga xam te ñoo nekk ci structure sanitaire yi ñu mën a euh, euh, dalal étudiants yi ni mu ni mu waree ba pare tàggat leen ba saa suñu génnee ñu mën a nekk ñoo xam ne dañuy dañuy mën rek dañuy tàmbali dañuy mën tàmbali directement seen seen prestation sans pour autant que ñuy ñuy soxla ay renforcement ak yu mel noonu. lu jëm ci taxawaay stagiaires yi ci wàllu pratique doon na lu attirer attention. atelier bi apporté ñu ni tey ak ëllëg. gën na yokk sunuy xam-xam naam tuuti sax gën ko nammaat. Mhm. waaye itam gën nanoo ñoŋal ndax ñu gën a mën a def liggéey bi normalement parce que. ndaw si bokk ci atelier bi di joxe xalaatam ci ni mu gisee mbir mi. bu ñu waxee harmonisation mooy ñëpp di liggéeyee. Euh, de la même façon il faut ku ñu tàggat leen ba nga xam ne suñu génnee dinañu nekk ay sage-femme pleine. faaw nag ñu tàggat nombre bu takku. ndax war nañ ko yokk pour que ñu bëri ndaxte bu ñuy former dañuy war a former de la même manière daal ñëpp ñuy former ñu niroo. personnel bi ñu nar a tàggat ci wàllu projet ngir améliorer maanaam ñoŋal qualité stage clinique yi mu ngi tourné ci 700 ba 800 mu nekk partenariat diggante ministère de la santé ak Zika projet bi nag. Dakar ak Thiès la concerné fu mu nekk nii. addu ba tey ci wàllum wér-gu-yaram taxaw nag ci chicha bi lekk ak cigarette électronique nga xam ne ndaw ñu ngi koy wër di jëfandikoo ci anam goo xam ne jégg na dayoo jaaxal nag ñi nga xam ne dañuy yëngu ci wàllum xeex lu nu mel bokk na ci listaab ñi nga xam ne ni yàgg nañoo artu ndaw yi waaye tam artu kilifa yi bu ko defee rek ñu mën a tere nag loolee ñuy jëfandikoo nga xam ne njeexital yi mu am ci seen wér yaram daal nekk na leen ni indil ay subiro ki tawat te loolee nag daanaka bëgg nañ ko daal di xeex ba tax sax nag loolee ñu ngi koy nemeeku ci yenn ci bërëb yoo xam ne moo ñeel plage yi ak restaurant yi fu nit yi di daje daanaka yenn saa yi daañu gis ni jëfandikoo nag loolee ca barab yooyee donte nag am nay maakaan yoo xam ne nag ñoom jug dañ seen bopp ngir xeex ko ànd ceeg Matar Bari Ligue sénégalaise contre le mu ngi wéyal xeex mi nga xam ne su munu ko ngir jële fi lii di chicha ak li ñuy wax cigarette électronique ci ab communiqué boo xam ne fësal na ko listable mu ngi artu ci danger yi nga xam ne moo nekk ci produit yooyu nga xam ne jamono ji bëri na liñ koy jëfandikoo ci espace public yi lu ci mel ni plage yi ca Paradise Beach nekk géej boo xam ne nag mu ngi féete ci corniche ouest bu Dakar comité de gestion ba nga xam ne moo fa nekk taxawal na ay mesures ngir doxalinu bërëb ba lii di chicha ak cigarette électronique daanaka dañ ko fa tere. waa ñun niveau bu ñu la gisee nga wàcc yor ko déjà d'office doo ko fi taal. mais parfois xam nga bu amee affluence ay samedi wala dimanche nit ñi dañuy ñëw dañuy bëri booy dañ koy xam dañ koy dissimuler seen sac mais si fois ñu gis nga taal ko rek dañu ñëw intervenir ne la pour nga fay ko. yenn ci ay ndaw nag dañoo jël ndogal ngir bàyyi di jëfandikoo yooyu le produit yi gannaaw ba ñu xamee danger bi nga xam ne moom moo ci nekk bokk na ci ñaari ndaw yi nga xam ne dañuy faral di dem ca Paradise Beach. ah si saa yi moom baaxul moo tax man dama ko waaw wax rek laa si mën wax dëgg fa ne yàlla. moo ko daan def mais gars bi ñu nga ko tere si laa bàyyi moom. xam ne lu baaxul la moo tax gars yi ko tere. ñeneen ci ñoom nag ñu ngi wéy di ko jëfandikoo naam sax ligue sénégalaise contre le tabagisme mu ngi wéy di amal ay artu. baaxul chaque jour gars wax si mais ñun moom booy moom yaa mel ni mënuñu kaa bàyyi li mu ne booy Dakar moom koo si gis mu ngi tux si saa wala wala mu ngi tux yooyu moom. mais il faut gars di si gën a a a jàpp a ci seen wàll nag comité de gestion bi nga xam ne moo nekk ca Paradise Beach dafay liggéey ak police képp ku nga xam ne dafay jalgati mesure yooyu nga xam ne taxawal nañ ko daanaka ay sanctions dina dal ci kawam. et on travaille à la avec la collaboration de la police ñoom dañ fiy ñëw di def patrouille boo xam ne à chaque fois dañuy ñëw di vérifier si tout va bien truc tout bu ñu waxee ñu dëgër ñun ne censé de faire la loi ñu ne au-dessus de la loi dañ leen di woo ñoom ñu ñëw lijjanti loolu ndax loolu seen domaine la. bu ñu sukkandiku ci estimation yu mujj yi fii ci Sénégal 11 pour cent ci xale yi nga xam ne dañoo am ci diggante 13 ak 15 ans ak 6 pour cent ci ay xale yu jigéen daanaka ay tuxkat lañ. listaab nag jàpp ni faw ñu baral processus législatif bi nga xam ne moo war a protéger ndaw ñi ci produit yooyu nga xam ne baaxul ci wér gi yaram. jërëjëf Matar bax yi ak ndaje gu yaatu la ñu amal niki tey jii ngir jàppale nag waa Palestine jàppale ne loolee nag awal ko ci gaaw gi ci ngoon alliance nationale pour la cause palestinienne au Sénégal lëkkaloo ci ak itam euh, force vive de la nation yi moo xam politiciens yeeg ñi faral ci société civile ñoom ñëpp daal di ca bottu xew-xew yi ñu amal ko ci esplanade bu institut islamique bu Ndakaaru fu sorewul dara nag grande mosquée jàppale ne nag li nga xam ne moo ñeel ay kilifa yu bari moo xam euh, wàllum diine itam teewoon nañ fa leader bu Pastef di Ousmane Sonko itam daan na dem ca ndaje googe nga xam ne fii ci Ndakaaru lañ ko daal di amal daañu coo ñëwaat suñu leen jotaayu uh, xibaar. mbokk yi fi ñu jaare buur jotaayu xibaar yi jaajëfal leen lu baax ci teewlu bi ànd bekk 7TV ci kanam tuuti ci xibaar yi dina saraan daañu gisee jaa ngeen